dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñoom be am na de Mame Ngor Diazaka dugg na ci ab guuta coow lu rëy te kim ko siqal mooy militaire yi suñu armée nationale waaw ab plainte la ko ñooñu le jébbal jamono ji yow góoru député Fatou Thiam bii de mi ngi ci ab guuta gu rëy lekkul naanut nelawul ndax xam na ne li koy yotta bés bu ne ko kritim dina ko dugal fu mu dul ti li ko ko joral du ay kàddu yum doon jël di dal ci kaw armée nationale waaw waaw daa am fit mbala dafa rep lu ci mënti am moom woykat boobu de Mame Ngor Diazaka am xoromam daa desee saf ndax tey bariwul loolu ay sénégalais yu nga xamante ne ay fansam lañ maanaam dinañuy déglu ay musique kan la sax jamono ji ginnaaw ba mu daanoo ci jamono ji nga xamante ne dafa nekkoon manageru groupe rappeur yi ñuy duppee Bamba Ji Fall boobu ba léegi ci année 90 ya maam Ngor Diazaka ci la gëjë daal di jog jog bu tax ñu ne mu ngi taxaw boobu ba léegi nag mi ngi ràmbani di gënee ay morceau ak góorgóorlu ci musique bi waaye daanaka mel na ni lam ca bëggoon yëpp amu ko ñàkk am gu mu ñàkk amali mu bëggoon ci aar bi waral mu daal di viré waaw waaw changé def daal di nekk politicien mu jaxasoo ak yenn ci politiciens yu mag yi tax na ba mu yaakaar ne lu ko neex wax lu ko neex def ba tax mu songu militaires yi yekk leen lu mel ni xeme bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom moom Mame Ngor Diazaga mi ngi wax ne suñu militaires yi maanaam l'armée nationale bi nekkee ci lu dul di lekk ak entraîner ka nelaw dong amuñu fi benn njëriñ waa kii xanaa daa dof lii la olof njaay naan na bëgg ndawal su la taxee galgal ñay tànk bu damm nga cay jëlee soo naree am sens ñu àndandoo déglu ko amul guerre militaires yi nekk si biir camp militaire yi di lekk ceeb bi ceeb bi ñuy lekk ceebu Sénégal la nañu gën a taxaw ci frontières yi génn ñu jàppale police ak gendarmerie di ramasse mais militaires yi tamit man contre ma leen dañuy nelaw rek ceeb tëdd nelaw entraîné ceeb bi ñuy lekk ceebu Sénégal la nañu gën a jàppale sécurité bi loolu dama koy ci waaw xam nga tey jii dinaa la jox benn exclusivité gis nga euh, benn am na benn bataillon bu ñuy wax treise 2 93 man ci batayon boobu laa waroon bokk man dem presque dama waroon dem armée parce que boo xoolee contingent boobu ñëpp lañu ñu rengagé woon en 2013 mooy mooy contingent 2000 mooy 13 de bi man ci laa waroon bokk est-ce que la boobu dama bëggoon dem armée parce que armée ñun ñëpp bi ñu nekkee xale dañ ko bëgg parce que armée ñi ko bëgg mooy ñi nga xam ni dañu bëgg a défendre seen couleuru dëkk yëfu góor la est-ce que la ñi ciy dugg ñëpp dañ ciy dugg parce que yëfu góor lañ ciy duggee ak protéger tamit seen couleuru dëkk beneen bi ci topp ñun yàgg nañ dégg ñu ne ay militaire militaire lu ay doomam gën a bari salaire gën a yokk dëgg loolu dëgg man ba ma juddoo ba léegi aujourd'hui tey ji euh, yàgg na yàggul mais man bi ma juddoo ba léegi mosuma gis wala ma dégg ñu ne militaire bi dafa sàcc parce que dafa bëgg ngénte wala dafa bëgg def lii militaire yi gore ak gendarme yi gore ak policier yi gore fa seen ngor nekkoon ba léegi moo nga fa c'est des hommes de tenue c'est des gens à respecter tey jii corps yi ngay gis ci àddina bi am na ay journalistes wala ay footballeurs wala ay mécaniciens wala ay ingénieurs yoo xam ni tey jii fa ñu nekk la ñu bëgg yëpp amuñu ko est-ce que la wax mais mënuñu à chaque fois yow nga nekk un homme public booy wax télé chaque jour da ngay wax gendarme yi les militaires dañu fatigué sonnuñu militaires yi gore woon ñu ngi gore gendarme yi gore woon ñu ngi gore Euh, les policiers yi nga xam ne ñoo ngi ñu ngi ñu ngi yoroon seen ngoro ba léegi ñu ngi gore est-ce que la tey jii nag bu fekkee ni bëgg a ngénte moo tax nga dem toj waa faa euh, cash pour sàcc yow yaa yor sa jikkoy sàcc bopp mais les hommes de tenue yi nga xam ne yàlla ñoom la fi teg ñu ngi redresser dëkk bi ñu ngi defendre couleuru dëkk bi ñu ngi liggéey et am nañ amélioration donc nag euh, le message que je donne au journaliste wala ma koy jox képp koo xam ne da wax ci lu jëm ci wàllu militaire ak gendarmerie ña fa nekk ay ngor lañ tey jii ñun bu ñuy nelaw ba yàndoor c'est grâce au e, militaires les gendarmes ak euh, les policiers ñooñu nag tey jii ñu ngi yor seen ngor di ko sàmm ba tey doomu policier yaa ngi dox ci dëkk bi jabaru policier yaa ngi dox ci dëkk bi seen i jarbaat ak seen i mbokk ngi fiy dox te bu ñuy dox fierte la ñuy doxee donc nag ñooñu duñu ay nit ñu sonn lii seen wërsëg ci réew mi ñu ngi koy jot yemale si seen soxla mais nag bu fekkee ni yow da nga bëgg soxla soo am dem sàcc pour faj ko yaa am ngoree di mais ñi doon gore ñu ngi gore ba tey yilee kàddu yi mu wax jëmale ko si suñu l'armée nationale bi tax ba ñi lee jàpp ne ab saaga wu rëy la ba tax noppi ci benn yoon ndax ñoom itam ñi faree ci seen côté di ancien militaire ya noppi ci benn yoon ndax xas nañu boobule artiste woowee ko tur bu ne lu ci mel ni minable samba mbayaanka grand laudateur pantoufar ak sax artiste mandian ndaw xuloo bu saf ñu àndandoo déglu lii waa waa Sénégal maa ngi di ziar damay massaw armée sénégalaise di ñaan ñëpp képp kuy sama vocal bi su mu def ba maam Gazaaka jot ci mu jotaleel ma ko mu déglu li ñu koy wax xam nga Sénégal da bëri dof lu neex waaye mu def des fois nit ki day tëlli tëlli tëlli ba dal fu mu waroon dal xam nga say parole nee nga 93 2 nga xaw ma la mu joo dem mais la tax mu joo dem waxoo ko. kon respecté ñi dem man je sais ku la yoon xaaju guddi ni la lan moo gën a métti sa vie nga ne li nga demoon armée xaw ma rànk nga amal armée sénégalaise xaw ma ñenn sa doom mais bës duñ ko te nii yow doom gumu def carrière maam maam góor jazaaka xaw ma parce que yow doo rappeur doo mbalaxmaan kenn xamul loo doon doo taaxuraankat sax mu dama jàppee ni ko wax yomb rek fu tooy mu tag di teel teel dem nga xamul dara ñun tey bu ñu la sikkulul yow sikkal sikkal armée sénégalaise parce que xool sa circuit si xool sa CV fi nga commencé ak Bamba Ji Fall yaa tax Bamba Ji Fall fay yow yaa tax Bamba Ji Fall fay mais yow doo fay sax sax estade munoo way wër nga fu nekk yaa dàq way xuloo nga fekk BSDA pour bu yow ay bës yu ndiw bës rek ay temps yoo ne xuloo BSDA pour xam ne yow BSDA nga yàgg xam nga Youssou Ndour du xuloo BSDA Thione Seck du xuloo BSDA parce que dañoo liggéey lu ko jar mais yow sa cassette du jar moo tax nga xuloo ay BSDA ay xaalis ay ay ay p ay miet yoo xam ne jaru ko ngay xuloo mais maam nga nekkal nit fii sa naw la nga fi nekkal gënoo fi kenn kenn xamul li nga bëgg wayoo bàyyiwoo léegi nag da ngay def ni tubaab def créer buzz mais bi bàyyi plus de buzz parce que tu n'as rien compris à chaque fois nee là aussi du seul le dur passe jaaroo fa parce que tu n'es pas un dur man leen rek laa lay conseil armée jàngal ñu la discipline militaire du ñu saaga du ñu xuloo yow du ñu xas dañuy wax dëgg insolence armée jàngaluñu ko ñu armée moo ñu yar moo tax ñu ne ko armée yarul kenn mun la yar ñu armée yar la sant on a nos classes nos frères d'armes tey jii ka nekk Ziguinchor ka nekk mission bul dégloo du la nawloo parce que da dugg domaine boo xam tu maîtrise pas yow sa appréciation kenn faale ko xam tu sais pourquoi parce que le monde entier bu ñu taxawee d'accord armée sénégalaise ONU d'accord ko chaque mission ñu recommande ñu ñëw mais da ngaa juum nit ki boo dugg wax daal da nga koy gëstu xool la ca ne yow boo saaga armée sénégalaise xas leen mais si président nga jëkkee le gardien de la constitution Macky Sall c' le président de la république c' est le chef suprême des armées foog nga commencé te yaa barki dem di ko tàgg di ko way di ko wan ni eh, géwalam nga di ko jóg Farba Ngom pour am place mais on a compris on a compris man de sa soxna maanaam sa càmm ku naw laa woon ba mu nekkee PDS di xeex assemblée yaa ko soppi mu transhumé. kon yow sax jaar-jaar jaaxaluñu Sénégal amoo fenn fa yow man yaakaaruma tey taxu tax ñu ne maam góor def ni fi lii defoo fi dara ay temps média bi topp nañ la fi affaire phobie fu mujj loo wax dañ ko may si public bi c'est que bu ñu gesoo rek soxor mais armée sénégalaise mi ngi lay jéggal xam da ngaa réer da ngaa juum parce que tu n'as rien ñaan leen rek lay ñaan bu rëy oyofal dugal nga def vidéo wa nga dem fa nga demoon jaar fa lii kii di wax théâtre kat bi euh, waaye le Thiessois Diop Fall dugal porte à porte fa nga jaaroon nga jéggalu jéggalu armée sénégalaise j'espère que yow de boo amee jàkk-jàkk doo doo wa police wala gendarmerie parce que xaas nga leen pare te en plus ngay sos naan boo doxee deux cent mètres doo gis policier ou gendarme fii ñëpp gis nañ police li ñuy liggéey actuellement angle boo dox tu as vu binooma deux policiers taxawal deux gendarmes ñëpp di ko rafetlu yow nga taxaw fii au-dessus deux cent mètres deux cent kilomètres xaw ma mais arrête maam góor tu peux tout dire mais bul sos ñun bu ñu duggee sa caaya nga xam ne yem moo am doole mais nañu comprendre day jégal ñun ak armée sénégalaise l'amicale de la 99 3 ak armée sénégalaise jéggal nañu parce que tu n'as rien compris di ñaan rek ñu lire vocal bi képp ku ko yóbbu tënge ci maam Góor Jazaaka nga jox ko mu déglu ko xool mu xam ne dafa defu nit moo gën maa ngi gërëm yëpp wasalaam. asalaamaaleykum waa Sénégal naa ngi leen di ziar kenn ku sa tur sa sant euh, aw ma nag di génn di def ay vidéo di ziar c'est mais dafa am benn information bu ma jot si média benn vidéo bu circulé maam góor di wax. si militaire yi man j'attendais que maam góor moom jasaaka su demee bay wax dara si militaire yi dina défendre position militaire dina wax ah ba yoru militaire yi de war nañ ko xoolaat condition de vie militaire kër war nañ ko xoolaat militaire seen euh, seen de travail war nañ ko xoolaat yaa ngi yokk seen condition de vie mais moom yow maam góor da ngaa tojul fenn yow maam góor yow waruñu joo toon sax parce que militaire dañ lay may buzz maam góor tojoo fenn yow maam sa ñaari morceau yi nga génnee fii bëgg a ni nit ñi naan am am yow ngay génne am looy wax en plus waxoo si kenn di jëmale si militaires yi militaires yi que militaire dañuy lekk ba suur tëdd nelaw lekk ceebu Sénégal mais bu ñu lekku ceebu Sénégal ceebu ka la ñuy lekk ñoom ñu contribuer ñu contribuer sur li développer le pays nekk ay ñoo xamante ne ñoom ay doomu réew mi nangoo taxaw pour jaayante pour défendre seen réew défendre seen cleur réew mu dem ñu dem bu partout dans le monde dem seen couleur réew di indi ay revenu di ko dugal biir réew mi man yow lan nga defalagum Sénégal lan nga defalagum Sénégal loo mën a teg sa loxo tey nga ne lii laa defal tey Sénégal militaire lu mu tuuti kenn ko tuuti lu mu tuuti tuuti tuuti ay dooleem ak force bu muy defal réew mi du matin au soir Mame yow tolloo boo ko nii amagoo un pour cent yow Mame bu ñu foto donc militaires yi lekkuñ ceebu kenn seen ceebu réew la ñuy lekk seen ceebu réew ñuy lekk te militaires yi c'est normal dañuy nekk si partout dans le dem si frontières yi si wër Sénégal da ko fekk militaires ñu ngi taxaw da nga xam condition ñuy dund foofu noonu ndax amuñoo ay papa ak yaay amuñu ay doom mais loolu yëpp ñoom ñëpp ñu xool internet international mooy défendre suñu réew ñu taxaw di matin au soir di jaayante pour seen réew amul lenn looy wax di génn naa militaires waaw dañoo leen war a génn ñu yóbbu ñu dem def patrouille ànd ak police ak gendarmerie loolu mooy wax ne xamoo si lu ngay wax parce que police dafa am mission bien déterminée la gendarmerie pare armée pare kenn ku nekk bu ko defee mission te pourtant loolu ngay wax noonu gars yi ñu ngi koy def te mais yow est ce que yow dañoo tax taxaw di la rendre compte yow li lay wax ne tu n'es pas informé xamoo si dara lu ngay émettre nii di wax naan man bataillon 13 laa bokk mooy lan bataillon 13 fan la am Sénégal fii dafa am yow et que que ça la première et la dernière fois nga taxaw fii naan yaa ngi am lay wax suñu tere yow te ñun tout se fout de yow ni ñu sa morom nga faral toj yow da ngay génn di am lay expliqué naan si militaire yi non c'est-à-dire militaire yi nga war a taxaw tey bu nekk ma doo woykat bu toj fenn tojoo fenn quoi mais da nga waroon génn sax au moins de benn single kat sa sax di jaaraama militaire la on peut comprendre au moins mais nga génn di am lay émettre di wax naan nanga noonu militaire militaire dem di jëli dem fa li joxe seen doole di ñëw indi koom-koom mu dugg si réew mi militaire nekk di la défendre yow ngay mën a tëdd di nelaw tey yow sa doom tey tey tey tey tey ko jëloon dañ koy dugal armée ñu dugal mu nekk si condition bi bu gars yi di dund nii da nga donc doom dem armée tey bu ko sa doom dem armée pourquoi mais yow bu ñu jabaram que ça soit la première et la dernière fois man nag boo boo génnaate di wax keneen wala keneen ku génn di am lu muy attaqué armée man génn dinaa wax ak yéen yéen dinañu yëpp yéen war taxaw tey défendre armée yokk doole wax président mu gën a xool condition de vie des forces armées muy police gendarmerie rek sapeur pompier douane forêt ñëpp forces armées carrément ñu xool seen condition de vie xool nañu ko amélioré surtout les militaires surtout les militaires je dis bien les militaires seen condition de vie dañu ko war a xool ko bu baax mais lii nii nii du leen ko permettre ah du ma ko permettre kenn. salaamaaleykum askan bi maa ngi ziar ñëpp parce que ñun ay soldat lañu maam Ngor Jasaaka askan bi yëpp la mere soldat yi seen doom yi seen soxna yi seen parents yi mere nañ la ndax su fekkee yow yaa ngi def ay concert walla ngay dem di def ay répétition sa xel di dal ba nga nekk sa biir kër lekk ba suur raay sa biir naan sa ndox mu sedd naan sa attaay lawal deuxième troisième gën di classe armée bi kon yow xamoo dara ñu gëmuñu la sa way baaxul sa test baaxul sa xalaat baaxul si biir réew mi foo génnee sa communication yaa ngi wax loo xamante ne amul lenn si dëpp woo ak yow sa melokaan dama ne militaire nga dox ak benn tànk te yow Mame Ngor Diazaka yaa ngi sa kër militaire nga dox ak benn bët yaa ngi sa kër militaire ngi dem guerre bal di ko dal ci dënn bi muy daanu di dee yow yaa ngi sa kër jabaru militaire yi ñoo ngi tëdd seen boroom kër yi tàggule na ñoo ngi dem taxawal suñu réew ñëwatuñu kees la leen andil yow soo yërëmoon ñooñu nekk patriote yow daa wax lu nga wax. doomu soldat yi su sooy doom a ngi sa kër di la gis gis ñu seen bàyyi parce que ñoo ngi si mission yi yow nga tëdd sa kër di wax lu nga wax la nag xamoo ko mais ñun dañoo formé dañoo am formation bu baax am yar am teggin bëgg suñu réew gëm suñu réew loo wax duñ la faale mais yow gëmoo dara tu es très ménable Mame Ngor tu la ñu gëm ñun. ñun Oumar Pène lañu gëm ñun Wally Seck lañu gëm ñun Youssou Ndour lañu gëm ñun Pape lañu gëm ñun rappeurs yi lañu gëm ba mu def yow parce que ñoom jamais que ñu xeeb homme de tenue ñu taas homme de mais yow sa biir ci peese rek nga wax da nekk ci jàmm moo tax ngay wax mais jàmm jooju dina continuer déglu Oumar Pène déglu Oumar Pène. ñun kii lañu gëm ndax lii rek doy na lii rek ñun ku ñu fayul xaalis yërëmoo ñu ñaanaloo ñu lii rek soo ko waxee rek suñu xol sedd na yow su fekkoon ne intellectuel nga su fekkoon ne yow médecin nga war a ngaa xalaat tey jii ne na sama mbokk góor ñi nga xamante ne sama doomu ndey samay frère yi dem armée tey jii ñiy génn si àdduna au moins ma defal leen ay ñaan au moins que ma defal réew mi ñaan suñuy obligé yi am taxawaay bu rafet. yàgg fi loolu te ànd ak wër mais yow li nga génnee nii dama ne doo dara kii très ménage Omar Pène mi ñu gëm ñun kii moo gëm soldat ak i ñoñam mais yow gëmoo dara waaye nag militaire yi faale wuñ la xooluñu la gisuñu la calculé wuñ la soo duggee ci camp dañu la respecté foo romb dañu la jox cër mais jàppal ne bàyyi nga sa loxo bàyyi nga sa loxo tey bàyyi nga sa loxo ëllëg waaye nag nit ci ànd ak ay morom ñooñam dem ci ba ci biir xaddi rek dafa fekk ne kooku daa amul volonté amoo volonté yow jërëjëf. waaw waaw maam Ngor Diazaka mel na ni waaja nga xamante ne da doon jaay mën a feey ba lab ca géej ga dugg na ci guuta ndax bokk na ci làmb goo xamante ne bàyyi naa amu ci li mu teg ci kaw militaire yi ñoom daf leen a métti ba fa métti yem te maam sax naka xam na ne li xeeñ neexul de looloo taxoon mu amal ab sot di ay kàddu pa njéggal di ci militaire yi ñu jéggal ko ndax daal li mu wax dëgg-dëgg jàpp na ne nit ñi dañu ko waxee neneen noo xamante ne bokkul ak ni mu ko doon waxee waaye mel na ni loolu génnewu ko ci de ndax lu mu mënti waxit dina wuyu ji ndax yoon a ngi koy xaar ab plainte la ñu déposé contre moom militaires yi fas nañu yéene dem ak moom fa mbaxana doonee benn déposé nañ ab seen déposé nañ seen ab plainte ngir yóbbu Mame Ngor ca tribunaux ya ana nan la wànnante di mujjee ki gëtama ah, dinañ ci ànd ak yéen ngir indi leen ci yeneen i leeral jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum donc maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp euh, dama gis benn vidéo boo xam ne dafay euh, circuler ci internet bi mu mel ni euh, xam naa interview loolu quoi mais dafa mel ni gars yi daal. dañu dagg li leen gën a arrangé ci ci vidéo bi ñu génne ko te ñun liñ ci jublu woon rek mooy lu baax donc ñëpp xam nañ ni militaires yi ay góor yàlla lañu ay nit lañ yoo xam ne tey jii bu Sénégalais yi amee quiétude mën a dox ci seeni soxla ñoom ñoo tax donc nag képp koo xam ni militaire bi wala ngay homme de tenue te wax bi nga xam ne tey jii moo génn daf la offensé je me plie maa ngi jégalu bu baax a baax a baax parce que jubluwuñ ci woon loolu liñ ci jublu rek ñoom la gars yi gën a respecté boo xoolee dëkk boo dem bu ñu taxawee gars yi ragal nañ leen donc loolu lañ ci jubluwoon mais jubluñ ci xas leen jubluñ ci wax bu ñaaw donc nag képp koo xam ni sentir nga ni wax bi dérangé na la ngay militaire wala ngay homme de tenue wala ngay civil sax maa ngi lay jégalu bu baax a baax baax a baax jërëjëf merci.